Frangin ak Frangine laa si yemale. Frangin je je nettoie mon j'aime papa. s'il te plaît est papa quoi. mbokki Sénégal nuyu nañ leen ñu ngi leen baax a baax kontaan ci yéen ah. waaw maa lay bëggee at la at la heure bañ daa mel ni de bu <laughs> ñëwee jàkkaarloog yow. <laughs> <laughs> bu caa maa ngi lay nuyu sama xarit bi sama caméraman bu bees bi. <laughs> le nouveau caméraman je te salue. tey de moom la jël. xale xale xale grand théâtre barki Serigne Touba grand théâtre ku fay defati plateau day woote allo Sofia <laughs> pardon na nga def damaa bëgg a def plateau. ndax la ah. ndax xar. sérieux waxuma la toj ak wàcceeg yooyu de. Eh. da nga koo xar. mais yow ku jaar sa formation ñeme. pare goo pare goo de. Hmm. formation pare guñ. des na de des na. waaw ah, des na lu bari sax. laay de waa keroog grand théâtre da ngaa am loo jël bi ngay ñëw. non jëluma dara. li ma li ma jàng rek laa appliqué. ñam nga dara ñam nga dara. ñam ma dara de. bi ngay ñëw ñamoo dara yow. <laughs> déedéet. joxuñu la dara déedéet bëggoon bégal téléspectateurs yi rek yaa ma gën a xam xam nga bés boobu moom bésu sargal jigéen faa nga wane sa bopp pour nit ñi mën a bég lu dëgg ASC jàppoo saam dimanche la AG bi keroog lañ doon AG ndakate bi ngeen AG woo wala ñi ngeen war a woo booy ñëw tas ko pour def ko dimanche bii di ñëw incha allah parce que ama moo bëgg nekk président mbii moo bëgg a nekk président équipe bi ah nekkoo ko kon maa ngi jégalu <laughs> mbii du président ASC <laughs> bi dimanche 24 école 14 may na la boobu dafa neex dimanche la du la 14 <laughs> école 14 école 14 lañ koy defee AG bi ci bii napp nañu nag napp na la kay bii moom lu yow nangu rek yaa fi dàq nappaate noonu la demee nuyu nañ leen bu baax mais soo tey dañoo fleur de maag yow waaw tey moom dañoo déggoo suñu nii rek tey moom dañoo garaaw ah li nu demee nii gisoo niñ ko agencé ci kaw ak ci suuf de c'est dama laa jox dama laa jox fleur ci suuf man ma géré ko ci kaw ëpp na noonu la góor góor ci kaw lay gérer jigéen gérer suuf waaw lii mën naa ne man ma sàccal la ko toq ci suuf rek mu daal di mën a refléter ci kaw bu baax barki Rasulaay foofa toj Sofia waaw Sofia damaa invité ay booy waxuma la ko woon mais invité naa leen am benn problème man suuf sa rek démb uh-huh. démb laa gis booy bi di way ndeysaan esat daal damaa toog esat ba mu yàgg rek ñu may way ci way bi déggoo loolu sa yaram daa di yëngu. ma ne waa lii la ñu ne ma c'est toi qu'on le que c'est toi qu'on sent <laughs> man ndekete je savais pas que on ma sant la. nga wër xale bi ba gis ko. ma war ko ba gis ko Sall Ngaari lay wuyoo. ndeket daanaan mi ngi dëkk Géejawaay. moom a Galaay ay doom lay lañ. ndeysaan te moom moo bëgg Aziz Pambaay. ndeysaan kon ci kanam tuuti fi yegg si. kooku ndaanaan la yow. waaye tey dañoo am thème tey suñ thème bi mooy ñuy sàcc xale yi. Hmm. waaye avant thème bi sur ça. <laughs> ba sur ce avant ñuy wax li tax ñi sàcc moom dañ fay jaaree ne sur ce rek ah nuyu am chers téléspectateurs bégéti nañ ah ànd ak ci li nga xam ne mooy émission bu mag bi émission de divertissement de pause de détente fi lay xewee sa su nekk ci la 2STV la grande télé la télé autrement ak xale ci ca mberem boroma tocc ànd ceeg lu Baye Fall kenn du moom boroma tocc a ngi nii waaw kontaan ah, noonu ma waxaat moroma tocc Sophia bu ma waxaat moroma tocc j'espère que seen week-end vous l'avez bien passé alhamdulilah waa comme ni mu ko waxee rek tey am nañ thème bu bu xaw a sensible bu ñor askan bi tey dinañ ko waxtaanee incha allah ñu dalal fi ki nga xam ne mooy ndaanaan bi ñu waxtaanee léegi rek. ak Cheikh après waaw moom ndaanaan la daal man dooma rey na avertiroo ma du ma ko nangu. <laughs> après ñu hmm? am na keneen am problème bu ñëwee ñu gérer ko tàmm nga ma yii di ma ko def <laughs> amul benn problème. <laughs> léegi thème bi mooy xale yi ñuy sàcc lu tax ñuy sàcc xale lu seen a wéyjur di xoole bañ leen di sàcc. lu tax ñu tàmmu xale yi. lu tax ñu taamu xale yi. Uh-huh. da ngay sa place dama sa place dama sa place. yaa am sa place taxawal la sa place la. déedéet dama dama dama. moo bàyyi ma waaye tamit. dama dama taxawal noonu. Seex fi may place am ah. bu baaxee rek baax na ay ma. Seex fi may place am da ngaa fuy da nga ñëw si télé cameraman nga am sens sa yaa tudd nga tudd Sophie cameraman yi. ma bari fi doom rek moom mooy mooy sama doom mooy sama taaw. dugal yaa ngi jël sama place. <laughs> ñu songu thème bi xale yi nii sàcc. waaw sàcc xale pour lan bon sàcc xale pour lan pour sacrifier ko. Mhm. sacrifier après léegi nga sacrifier ko après nga am li ngay am après léegi soo amee li ngay am ba pare sa xel du dem ci xale bi nga sàccoon. Modou sacrifice bi sax du du du 100 pour cent ngay am. des fois ñu tetal la ci tetal yu bon yooyu ne la boo sàccee xale indil ma nangam ci xale maanaam organ il faut qu'on le dise en fait soxlawuñu rey xale noonu rek dem seen yoon daa am lu ñu soxla ci xale des fois nga dem ñu tettal la ci la nga xam ne dañ naan laan utal xale bu xamul dara utal xale ba nga xam ni voilà xamagul dara daal comprendre boo ñëwee rey ko jël benn organe utal bu jógee bu verse lañ lay wax waaw waxal loolu la waxal loolu la yàlla baax na amul benn problème moom moo ko wax xale bu jigéen bu vierge xëy na moom waaw c'est ça parce que ñoom loolu lañ leen di digal. loolu lañ leen di digal xam nga xale bu góor bu xamul la nga xam ni mooy yu ñàkk fayda la nga xam ne day jeex tôt ou tard day jeex da dul yàgg sax. pour alal àdduna pouvoir pouvoir surtout alal. alal am am. am am daraja place. place ndax lan. léegi nga sacrifié doomu jaamu est-ce que yow bi nga tollee ni kooku buñ la defoon noonu di nga màgg ba am xalaat. yow boo réeree sax jom mi asantuma la ñu sàcc la baray la. mais loolu lu ko gën a irresponsable amul mais nag Sofia avant sàcc xale yi dafa am. lu tax dafa am lu jiitu loolu. manque de responsabilité ci parents yi. Mhm. parce que des fois aussi Sofia am na ay parents yoo xam ba léegi ñi yar ñi daan yar ba léegi ñi ngi yar. seen yar ñi daan yar bu ñu amee doom dañ leen di yar. Mhm. mais soo am na ñoo xamante ne ni amuñu sax seen jotu doom. Mhm. mooy li ma lay faral di wax tout le temps rek dañuy topp bëgg-bëgg àdduna bi am nga di topp la nga xam ni sa njaboot moo la gënal loolu parce que li gën a riche si adduna mooy sa njaboot mënoo am lu ëpp alal sa njaboot. tey ji bu fekkee taloo ko nga dem wuti la nga xam ni xaalis lay doon wala dara alors que sa doom nekku ci jàmm yow tu seras fautif dañ ne doom bu baaxee doomu ñëpp la doom bu bonee doomu ndey ja la ñuy wax te loolu je pense que war nañ mën a jël ay matukaay yu am solo sa doom bu toogee nga jël ko teg ko sa wet lu mu bëgg nga def ral ko ko nga gate ko c'est vrai mais bul ko bàyyi muy génn yenn heures yi bul ko bàyyi xam nga nga sànni ko ci mbedd bi yow toog muy taxawaalu def lu la muy taxawaalu. afse waale la numéro bi afse la numéro bi parce que Sofia li muy wax am na solo te mi ngi koy waxee xol xale baa ngi waxee xol afse la numéro bi. non dafa dafa parce que xam nga ñoom xale yi rek. la ñuy joxoon yow dañ laa nga xale dégg naa. non parce que sama yaay elle a toujours eu la chance xam nga éduquer ñu ci wetam vraiment ñun xamuñu woon génn. ñun bu ñu daan génn ci cour bi la ñu toog man ak sama frère yi waxtaan et tout ñu génn en fait parce que loolu la ñu yaree mais sa doom boo ko tegee sa wet elles seront plus wala ils seront plus en sécurité mais bu fekkee yow toog nga sa kër yaa nga ca natt ga taloo sa doom yaa ngi ci tontin ba taloo sa doom yaa ngi ci meeting yi parce que meeting yi tamit des fois mooy loolu dañuy dañuy jékki-jékki dem seen yoon bàyyi seen doom yi ginnaaw alors que insécurité des fois de temps en temps day gën di yokk foofu nga war a mën a jëlee sa njaboot teg sa wet te boo seetloo soo boo seetloo lu ci ëpp xale yi ci période yi nii réer dafa am ci ay période yoo xamante ne ci la ñuy seetlu na ci xale ci la xale yi di dem te li ci ëpp mooy ci période électorale yi mm-hmm. élection yi période élection dafay période boo xam ne xale yi ci réer bari na yiñ ci sàcc bari nañ bari nañ bari nañ te loolu yëpp dafay xëy na mumbaay dina am ci dëkk bi xumbaay dina am ci dëkk bi mais am na nooy yoree sa ay njaboot am na nooy yaree sa ay doom ñoom duñu xalaat tey jii bu ku mën a génn ku mën a ñëw dañuy même bu dee dinañ génn sax fi ñuy war a yem la ñuy yem mhm. bu ñu paree ci li ñuy def duggaat ci seen biir kër mhm. wala yow mi seen wayjur bu ñuy booy dem nga ànd ak ñoom téye leen mhm. soo paree nga ñoom ci biir kër gi ah, Sophie ba pare am na ci yenn quartier am na ci yenn quartier yoo xamante ne boo seetloo ay sàcc xale daf fay raar. Mhm. parce que foofu day am duggante. foofu day am xamante foofu day am. jàppante la ñuy dajaloo di foo ci koñ bi la ñëpp. xale yi ci koñ eh. bépp ñooy fréquenté na. loolu la gaaw a sàcc. pour nga quartier yu ci yenn quartier populaire yi pour nga sàcc fa xale day jafe. parce que mhm. am na yenn ci ay réaction wala ci ay action buñ ko gisee rek dañuy xam ne. lii c'est dañuy xam ne dëgg pare dañ koy waxtaanee sax nag. su ko defee gars yi dañuy côté yooyu dañ ci am chance mais ci yenn quartier yi comme quartier yi nga xamante day wéet dafa calme yu calme yooyu quartier yu calme yi yu wéet yi nga génn tey jii gis fa benn xale xam nga fekk ñu digal la mbir moo xamante ni nii mooy loolu xam nga am na ay mais aussi ñi leen koy digal tamit man. ñi leen koy digal def defuñu dara de non en ci lañ bokk c'est vrai que part bi ci ñëpp ñële lay ëppee ñi ñëw di demander lu ñu bëgg du dëgg mais tey jii sëriñ bi toog ne mën naa loolu. wala demal nga jox ma lii ak lii moom tamit am na ci part de responsabilité bu fekkee yow da nga toogal askan bi yàlla dénk la xam-xam am na ci da nga xam da nga ko war a def ci lu baax ah, mais da nga war a def ci lu baax mais pas <laughs> mais pas xam nga jël ay yu bon ay njibar ak yu kenn xamul di ko def ci la nga xam ne amul sens nit nit dafa sacré te fii ku fi rey ku ne da ngay feeñaa da ngay feeñ ah. da baqen dafa fort mais imaginez yaay ji jur doomam di yar doomam toppatoo doomam ak Euh, euh, temps bu mu jël yëpp élever doomam ci temps boobu yëpp nëpp yëpp yëpp nga jékki-jékki ñëw sàcc doomam amuwut boobu muy am vis-à-vis ak doomam boobu noonu mu amoon espoir ci moom amoon li nga xam ne mooy yaakaar ci moom ëllëg ci biir xam nga mu war a mën a am teral ba nga xam ne mu ngi koy yaakaar teral ko boppam wala ay fameem tamit xam nga neexul daal neexul macha allah loolu am na solo kaay taxaw li ngay wax ni dafa am solo. <laughs> parce que parce que parce que parce que Sofia xale mooy doon mag ëllëg. parce que Sofia xale mooy màgg ëllëg doon koo xamante ne nii man la sam waay. mooy l'avenir mooy doon avenir de demain day mën a jëriñ ñu bari comprendre nga. Mhm. mais am na ci ay mbir yoo xamante ne bu fekkente ne dafa am loolu dañ koy ñaawlu bu baax a baax a baax a baax a baax te am na. existé na bari na de tout récemment xale yaa ngi réer tout récemment xale yi ñu ngi réer te yéen ñii di sàcc xale yi xam nga yaa ngi doon wax léegi sëriñ boobu sëriñ bi nga xamante ne mi ngi digle ñu jël xale bi mais Sofia sëriñ boobu yow boo ñëwee tey man may sëriñ nga ñëw man la il faut nga indil ma nopp xale nga ni ma nga ni ma yee eh, man du def loolu ah waaw yamale ko am na ñu mel noonu ah. nga dem ma eh man duma def loolu man duma indi duma ma sacrifier doomu jàmbur pour doon dara wala du ma sacrifier doomu jàmbur tey pour am dara. loolu du am loolu nga yóotu. te wóorul nga am loolu nga yóotu parce que yàlla sunu borom mooy nangu mooy dogal. mooy programme dama mais yàlla tamit daa mën seetaan de. non mooy programme lu mu def lu nekk rek loolu na yàlla côté yooyu li mu ci seetaan dafa dafa waroon di dóor mbaj gaa yi. non non moom des day bëgg toog xam nga VIP di la seetaan yow di xool lan ngay def. ba xam yow am nga xolu yërmande wu bàyyi parce que xel des fois doo comprendre xam nga mën nga am xel ba nga xam ni da lay jubal ci lu bon mais yàlla ji da lay seetaan xool boo xam di nga mën a jël pas en arrière pour mën a tuub peut-être ci xel boobu yàlla may la nga bëggoon def lu bon loolu noonu. am na solo am na solo mais dañ bàyyi sàcc xale yi daal. am na solo waaye waajur yi c'est très c'est très vraiment <laughs> li nga wax nii moom daw na yaram. laay dafa dafa am na yeneen sàcc tamit yu am mooy sàcc yi ñuy mag ñi di leen yóbbu di leen tëj. Ah? waaw. waaw am na ay mag yu nuy saaj. am na am na fi équipe boobu ma leen waxoon ñooñu noonu. tey <laughs> xeex rek. mais am na ñi nga xam ne tamit classe xale jigéen ñi am na ñoo xam kenn sàccu leen ñooy sàcc seen bopp dem yóbbu seen bopp maa wax lii man caam. dama ne la sax am na ay mag ñoo xam ne dañ leen di sàcc te sàcc mag yi baax na. a <laughs> ah, mag kat boo ko sàccee ma la sam waaye da nga koy yóbbu ko. <laughs> loo koy def. soo ko tëjee nga ko. loo koy nga lu cum lu cum ko. ak la cum la cum. sàcc loola eh seex seeral loolu yëpp. yaa fi ne daal mujj naa nekk technicien. régisseur régisseur la mujjee nekk. waaw mais nañu ubbi antenne bi gars yi dugg ci 88 628 14 14 ñu mën a waxtaanee li nga xam ne mooy thème bi. laataa ñu dugal suñu ay invité. Hmm? Eh, bu caa clip s'il vous plaît bu caa may ñu clip. <laughs> tey bu caa la jël. Eh, macha allah macha allah mu nekkoon Demba Guissé waaw moom ndaanaan la ci biir ndaanaan yi dëgg neexu sunu xarit bi borom borom tooñ bi ah moom ndaanaan dafa mën a tooñ waaye nag di nga xam ne ñun nga fi fekk waa 12 13 buy ma di souhaiter tous les natifs d'aujourd'hui ah tey moom du ma lim ñëpp <laughs> laay souhaiter happy birthday rek di fa wax aussi happy birthday à monsieur Niang chéri Awa Diop borom Grand Yoff yow awa neen dalaa bëgg ba loo lu mu la bëgg lu nekk rek doyul foofa toj loo dund lu nekk rek doyul chéri ah yow happy birthday dundal lu bari yaa xéwal saawan baawan benn rek laa lim. moom tey la anniversaire am. ah d' accord Khady ñu ngi koy souhaité happy birthday kat bi. jàmbaar bi bëgg jëkkëram jàppale jëkkëram sa Kajoor. oh une de fer. waaw fonk jëkkëram. mooy xale boobu nga xam Sénégal ñëpp ko naw. macha allah ñëpp ko naw ah. ndax uh-huh. muñam. ndax mm-hmm. ngarmeem ndax bëgg jëkkëram macha allah. ñu ngi lay souhaité happy birthday di la ñaanal yàlla defal la jàmm. amiin tawfeex tey taysiir rek ci barke Seydina Mohamed mais suñu premier invité la ni woo mi ngi wuyoo ci turu Youssou Ndiaye bismillah waaw ndaanaan. waaw kii suñu vacancier bi. waaw dafa ñëw vacances moom waa Europe lañ jël na semaine bii dina am yeneen waa Europe yu fi ñëw. bisimilah ah waa Europe daal lañ jël bisimilah. mën naa ne tey waa Allemagne la semaine bii. gudantaak Guten Tag, wie geht's? Alles gut? Gut. Wie geht's? Yes. Danke. Sprichst du Deutsch? Yeah, fala I don't speak, I don't speak Alma, I speak English. Yeah, so yeah. a little bit. Waaw waaw yomal rek nag nag. daal li ma wax jub na de daf maa xeeb ni I speak English so a little bit. yeah, you speak very well English. you speak very well English yow. Tos ñu ngi lay bëggee. mais ziar naa la jabaat. yaa ngi am jàmm. ci loone. ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la ak waa àddina nga nuyoo ak ñoom. soo tey nag maa la indil gan. Ah. dama lay bàyyi ak moom. ah te daal moom nga ma bëgg bàyyi. Ah, waaw tos puso tuuti waaw waaw puso atal tuuti voilà kay. fee baax. waaw rek. rek nu nuyool mais salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa 2S maa leen di nuyu sama jigéen di nuyu sama jarwaat Moro mhm. euh, di ñëpp di nuyu ñëpp ñi may mais à travers 2STV di leen wax ni kontaan naa ci ñëpp maa ngi bëggee ñëpp wasalaam wasalaam ñu ngi kontaan ci yow bu baax a baax wasalaam gaaw na tur bi. Youssou da nga ma ko présenté wul <laughs> Sofia tos Youssou Sofia Kaye Sofia Kaye Sofia Kaye Sofia Kaye waay Sofia eh. de. te tos de accolade. waaw noonu sympathie. waaw waaw la accolade kay. ñu bëggoon xam kan mooy Youssou. ak ci lan lay évoluer ñu ngi gis yaa ngi ci uh-huh. musique ah nga nekk fi nga xam ne mooy allemand. ñu mm-hmm. bëggoon xam yow. ban musique ngay def en fait mbaa làq bi zouk arène bi wala acoustique. waa dëgg la euh, man euh, maa ngi tudd Youssou Ndiaye dëkk Thiès. Mhm. Euh, yàlla dogaloon muy jouer batterie ba tey nag maa ngi jouer batterie. mooy sa spécialité mooy sa spécialité. parce que ñu bari sax Youssou batteur lañ may wooyee. mais comme que musique dafa yaatu. dama dem ba ci biir sentir ne dama war a mën a génn lii lii nelaw ci man muy way ma commencé way. boo comme ni ko waxee comme ni ko sama jaral waxee maa ngi nekk Allemagne. Mhm. musique may def mu ngi nekk Afrobeat. Mhm. Afrobeat moom lay moom lay moom lay moom lay def ak sama ñu koy woy United. pourquoi est que transhumance boobu di am à chaque fois que dañuy gis ni tëkkat sabar yi dañuy jékki-jékki rek def ay taasu ñu gis ni peut-être batteur bi day jékki-jékki génn ay son pourquoi transhumance boobu noonu. waaw lool lool loolu sant la. parce que musique boo yemee ci benn affaire rek yow war nañu xoolaat say mbir. musique da nga war a polyvalent war nga mën a jouer guitare riiti. mais est-ce que nit ñi léegi ñi ngi jàng li nga xam ne mooy musique très bien question bu am solo nga ma laaj am na ci nag sama classe gi moom mooy loolu xam nga rek dañuy xëy rek ni bon ok voilà c'est ça hmm. mais musique dafa nekk loo xam ne loolu doonul taalib euh, sëriñ taalibeem doon taalibeem da ngay nangoo tarbiyu hmm. nga nangoo gëstu hmm. nangoo aussi patient nga nga patient nga patient man bon di ko ñi ma xam dëgg bon bu ñu gisee tey may way ñi ma xam dëgg du leen jaaxal. Mhm. parce que joué nag ay ay ndaanaan yu bari yoo xam ne dama daan joué batterie di aw. comme ça comme Seck Samba Alar yaa ngi koy fàttaliku. samba alar ali jeli gërëm ay waay soppi jiko soppi samba alar mais ani mu ko mais kooku mais Modou kooku foog ñu foog ñu jël di dëgg la album boobu mooy son premier album mu j'ai batterie non ma j'ai batterie mais boo xoolee clip bi sax ak sama bopp ndaw maa ngi toog di jouer di bi di aw mu dokk loo xam ne dafa doon euh, nelaw ci nelaw ci man. macha allah ku jigéen aussi def un grand coucou di euh, la diva Kumba Gawlo. ndeysaan moom kenn du moom jaar nga ci moom. waaw jaar naa ci moom 6 ans. ah kuy fëgg laa mujjee def ak moom. ma koy def un grand coucou sama sama jigéen ba. yaa mujj yaa joué kuy fëgg. maa joué kuy fëgg. noonu la ta safte. vraiment dañ daan joué acoustique yi première partie. mais macha allah sama voix daf ko sentiroon dama daan joué batterie di aw. muy way te xam nga la dafa dégg. trop dafa dégg uh-huh, dëgg la euh, am na solo sa intégration biir Allemagne nan la demee. waa yomb na yombul. Mm-hmm. parce que intégration mooy déjà yow nga xam li la tax a jóg. Mm-hmm. mooy déjà nga bu ne leen salaamaaleykum tam nga ngan leen maaleykum salaam. Mm-hmm. nga bañ a rek ñëw jiital am-am. parce que mooy lakk bi. dafa am solo. parce que foo mënti dem da ngay jàng làkk bi. yow da nga jugoon uniquement pour dem jàngi musique wala lan. da nga amoon non projet de musique. dama amoon projet de musique donc bi ma Allemagne donc voilà di ma dem yàlla ta ci loxo. voilà ma yaatal rek. Mhm. et puis j'ai groupe boo xam ne ñoom ñëpp ay allemand lañ et puis il y a deux mi ngi tudd United ñoom ñoo may jouer en Allemagne. mais groupe bu am ay allemand. Mhm. deux africains ñoo ci nekk. Mhm. te yow li nga xam. ak wala li nga fi li nga fi jëlee bi ngay dem mhm. moo nekkoon mbalax mhm. te boo demee foofu groupe bi xanaa du ñàkk percussion mhm. dëgg la tëgg allemand yi ñoo lay tëggal percussion non non no non loolu nag moom dañ koy bàyyi ak suñu wax waaw loolu moom euh, am naa ñu ma jël percussion di ma jël tumba mais tout ce qui est les autres instruments comme clavier guitare basse almaa yi ma jeune. macha allah lan nga fa jot a réaliser lan nga fa jot def ci yàgg sa groupe United boobu. waaw United boobu yàlla mi ngi ci teg loxo ñu ngi joué ay festival un peu partout en Allemagne ñu ngi joué ay festival yu bari bari bari déjà nii nii nii nii incha allah am nañ benn festival bu ñu war a joué semaine prochaine donc euh, ñu ngi joué ay festival boo xam nañu daal macha allah. macha allah xam nañu quoi. macha allah et puis musique bi ñuy def musique africaine la. Mhm. donc loolu beneen couleur la. tu imagines des des des des tubaab. Mhm. ñuy joué musique africaine. Mhm. man déjà damay joué mais damay fier en même temps. d'accord est-ce que mën nañ xaar ci yuusu ay variétés yu am solo. yu ñu mën a jël fii importer ko wala exporter ko. Euh, exporter exporter exporter à l'étranger parce que à l'Europe seetlu nañ ni peut-être ñun suñu ay instruments ñoom dañ ci dañ ci bàyyi xel ba pare dañ koo bëgg lu ci mel ay kora. sunu sunu li nga xam ne ñoo ko moom daal. est-ce que yow Youssou xalaat na un jour. Mm-hmm. Euh, exporter li nga xam ne mooy sunu sunu mm-hmm. musique accompagnée de coran et de balafon. waaw loolu maa ngi ci déjà projet boobu maa ngi ci parce que maa ngi liggéey ak des musiciens yoo musiciens de euh, renommée. renommée mel ni Abou Dieng ma koy def un grand coucou Abou Dieng c'est le bassiste de Wally. ah d'accord Cheikh c'est le guitariste malien de Wally. macha allah di def un grand coucou ci album bi yëpp du ma lim vraiment. donc maa ngi préparé des morceaux yoo xam ne c'est à base d'afri euh, d'instruments africains. yaa ngi ci album. non maa ngi ci album déjà j'ai fait des vidéos xam naa du ñàkk sa waay dinañ ko jàllale. macha allah dina jàll donc euh, morceaux yoo xam ne c'est des instruments africains laa ko defaree. kora riiti xalam kalabas. macha allah waaw donc waaw mu nekk loo xam ni. tampon bi daal non mais nag wax dëgg yàlla waa Sénégal ah ñu ràññee leen ci li nga xam ne mooy mm-hmm. musique sénégalaise parce que mm-hmm. boo seetloo mm-hmm. sunu ay naataango nigériens yi bay nañ seen mbaar ba waa États-Unis sax léegi instant ñoom dañuy copier ci li nga xam ne mooy seen musique dafa am solo loolu waaw loolu dafa solo parce que nit da ngay jaay sa bopp da ngay jaay sa culture da ngay jaay sa mais lan moo ñu manqué loolu en lan moo ñu manqué ñun Sénégalais ñun daa mel ni ñun ñoo ëpp li ñu yore li ñu ma gis nga suñu musique boo xoolee ñun moom lañu moom la ñu gën a bëgg en Europe muy la musique traditionnelle africaine. mais pourquoi mënuñu ko visibiliser. voilà c'est ça. waaw mbir mi loolay mbir mi loolay affaire bi donc voilà pour man war nañu toogaat xoolaat ko segg ko seggaat ko. mën ko jaay quoi. mais segg bi est-ce que du caagi ni tamit peut-être yéen ñi xam nga yéen ñi yore percussion mm. percussionniste yi ah ak musicien yeeg yéen ñëpp ngeen boolewu gis mag ñi mm-hmm. waxtaanee loolu pour xam nga parce que mbooloo mooy doole bu ngeen ko waxtaanee rek peut-être solution du fa ñàkk jot mais bu fekkee ku nekk dafa toog sa coin bëgg ni musique bi war nañ ko mën a exploiter xam nga Sénégal am ci image bu doy waar loolu du dee xaw a jafe waaw loolu li nga wax suma jéego waxoon Souleymane Faye muy un grand musicien mu ni musique dafay am pied pied maanaam ñi may dégg di musicien xam na li ma wax maanaam japonais bi chinois bi anglais bi ku ko dégg day gis boppam ci biir da koy mën a sentir macha allah donc xam nga aussi bon ñun suñu mbalax lañu am mm-hmm. suñu mbalax dafa nekk loo xam ni ñun duñ ko booleeg lenn. dëgg la mais war nañu mën a xoolaat def genre musique boo xam ni ñëpp ci gis seen bopp. mbalax bi sax bu ngeen ko gëmee war na mën a yéeg ah. pourquoi pas. pourquoi pas pas. parce que seetlu seetlu nañ ni clip bu Beyoncé. yu bëri gis nañ ci ay tama. yu mm. ci fecc sabar mu neex ba bëgg dee. ñoom dañ ñu koy gën a bëgg rek. mais warul du yoon. ñu bëggoon xam lan mooy ay projet tonton Youssou. waaw tonton Youssou daal lii projet mooy euh, incha allah ñëw ak sama groupe fii. Mhm. bon ñu ñëw jouer fi des concerts. spectacle festival yoo xam ne mhm. festival. commencé ko Thiès nag fi ma fi ma dëkk. waaw waaw bay fi suma jërë dëkk waaw. macha allah macha allah waaw donc daal loolu bokk na ci projet yi. et mhm. voilà yaatu na nag mais xam nga euh, ku ñëpp xam foo jëm doo àgg.

kontaan ci Tafa Thiam. <laughs> waaw di kontaan ci Nogay. Seck di kontaan ci suma yaay Ndey la sama am. sama maam sama chéri koko. waaw <laughs> kontaan ci ñëpp merci beaucoup ci passage bi. jërëjëf non non jigéen jigéen jigéen. ah jigéen jigéen kañ kañ doon voilà. <laughs> toos accolade bi yenn nga ko toos accolade nii jaaf toos bëgg accolade nii. jaaf toos yow nekkal ci jàmm kontaan yow. toos kontaan nañ ci moom bu baax a baax. ñu koy bëggee man toos dafa accolade tam de. <laughs> Eh, toos daa accolade man accolaatuma. Eh, je vous en prie may la ñu clip. bii di allemand. kontaan damay libéré wu après. <laughs> kontaan nañ ci yéen bu baax a baax macha allah. mu nekkoon OMG. OMG wet si. wet si si pet si pet la. si pet si pet la xam nga si dafa garaaw. garaaw sama xarit bi maa ngi koy nuyu Talla Mbaye mon ami mon frère. maa ngi lay bu baax a baax di kontaan ci yow ah doomu ndeyu Bouga Mbaye doomu ndeyu Lil Pro booy Pikine bi Baye Fall bi taalibe Cheikh taalibe mam borom daaru bi. góor yàlla bi sama rakk ji sama xarit bi. yàlla na yàlla defal la jàmm tala sunu borom defal la carrière bu kawe ci barkib Seydina Mohamed yow góor yàlla nga Baye Fall nga maa ngi kontaan ci yow saa su nekk Talla Mbaye Baye Fall bi bëggee naa la mais waaw sur ce nañu dalal ki nga xam ne mooy deuxième invité bi cum da ngaa dégg waaw mën naa ne mën naa dugg si temp temp ndànk ñëw ci plateau 12 13 deuxième invité bi fecc feccam bi nii la man de mënu ma ko nag ñëwal dugal ak moom ñëwal ay waay ay ay ay waay ay lii def <laughs> ay yéen ni métti na di. waaw mais booy sa fecc bi nag daa métti de kaay taxaw nii. oui ma taxawal nii booy fecc bi moom mooy man. Mourou Mbaye fecc bi bees tàq la. bu ko kenn jël nag lu ma génne ñu jël ko ñaanal lan ngir yàlla ñu bàyyi ma bi nag bi capax capax lu tudd capax capax fecc bu bees fecc bu bees tes tak fecc bu bees capax capax fecc bu bees tes tak fecc bu bees capax capax ne lan xale bu ko mën nii nga koy nga nu yaay gën ci gën ci gën ci Modou Mbaye fee seen lii gën ci gën ci gën ci tàccu leen lii lu bees tak sonn naa boo amul entraînement yi doo ko def gis nga fecc bu bees ñaan nga ñu bàyyi ma ak moom non dinañ la ko bàyyee ah, metti yow da nga koy engagé bii kenn ko jël déedéet bii moom ku jël coono dina la si fekk <laughs> coono gu rëy Sofia sa deuxième invité ngi noonu waaw ñu bàyyi la nga nga nuyoog askan wi rek nuyoog waa 2STV waaw ah, Sofia ñu ngi nuyu Sénégal nuyu waa Guédiawaye gi ma jóge dem fexeel ba fi nga taxaw noonu bu fa jógee xam ah. naa li ngay wax <laughs> waaw di nuyu waa Sénégal nuyu waa Guédiawaye nuyu ñëpp yow da nga yëy si ngom yow. waaw ci bi. aal bi rek. aal bi baaba lii ma ko jox na xam nga lu ma joxee si ko waxal. baaba xamul lu ma joxee si ngom. <laughs> ala bi tax na fi baaba xamul lu ma joxee si ngom. waxuma fi mu taxaw di ma joxe si ngom. atia di nuyu Sénégal di nuyu képp ku ñuy seetaan. di nuyu géejawaay gi ma jógee jàpp nañ ci combat bi. Mhm. dañ may dooleel dooleel ma baax a baax. di nuyu képp ku may seetaan sama fan si club bi nekk plan jaxaay ak bi nekk géej teel nga am fans club de. waaw waaw waaw Modou Mbaye. ah waa géej waaye dañuy sot nag daa de. waaw xam nga banlieue la. ñoo dàqa sot ci àdduna. soo bi dama ko génne même pas une semaine. fu ne laay dégg sama tur. barki Serigne Bamba fi mu toll nii man damaa waaru sax. da ngaa tiit da la bett. dama bett waaye dina bett nag ndax ki ma ci woy daa jara way. lu la xiir ci affaire lu la ci ci ci aar parce que man bi ma lay xam dama la ko doon gis ci tëggkat yi ànd yi doon indi guy gi. Mhm. ñu koy indi. man géwél nga yow. man géer laa. Eh, déggoo wax naa ko son bi nee naan dama damay géer suma ma doon géwél bi laay ma tasum réew. Eh. Modou Mbaye ca kaw. Jëri ne ca kaw. Mbekay mbay sa bàyyi nañ dem ca kaw. ca kaw kon ca kaw. waaw ku soxor. doo dem ci kaw rek fii da ngay am da ngay wàcc de te moom xolam daa rafet. waaw moo tax ma ne ko ca kaw rek. kon ca kaw Modou Mbaye ca kaw. waaw loolu tamit mi ma ko. waaw mais xam nga waaye tamit doo ñëw naa ko faaw ko def ko surprise. kon dala def rek surprise wallaahi azim télé laa toog rek dégg mu may way. looy wax ni. ma ne ko kaay suba. teel a ñëw ndeysaan da nga daanu xaal. waaw dama daanu leer na daanu. moom bàyyi fa la quoi dafa am na solo am guy gi laa doon tëgal. Mhm. ma paa bay ma jaaga sama. kon yow ci tëkkat sabar nga njëkkee. waaw tëkkat sabar daal di transhumé. waaw tëkkat sabar laa ma ñëw léegi di waay daal ah li may def mun naa ko. Mm. te lu ma def mu neex nit ma ñëw rek dugg ci yëf yi ndax tamit gëm boppam tandaanaan la lii dafa baax ci artiste dëgg gi boo ko xon ma li bari cub dëgg rek de waaw Sofia xam naa sur ce man damay euh, bon non bii moom fecc gi il faut léegi leer laa la wax ki nga xamante <laughs> moom laa gën a bëgg si àddina daa ànd ak galaay <laughs> dafa neex ma tëdd na ci karo léegi son bi mm. yow soo kaay nii ah, may naa la may yow demal taxaw ne. ndeysaan. taxawal ni. jàkkaarloo ak caméra bi. waaw kii euh, tegal leen maçon bi. mu palay ba ko ay gàllaay li mu rob lan la tamit. léegi gàllaay sama fecc ka ñëw. gàllaay dama koo bëgg. son bi su baaxee na ñëw. rek. gàllaay. wuy ma caméraman yi bu leen dara rëcc ci salu gàllaay mi ngi mel ni màggatum kàjjooy na jug bada bande na fa la dakka ga ca yoonu bada bande na fa la dakka ga ca yoonu mare bande na fa la jomal bayi woon jomal xaadita jomal maraduta jon sol signal bu bees a bees tàq bu bees capax fecc bu bees a bees tàq bu bees way galay xale bu nii nga koy defe kët kët kis gin gin gin cek gala fekk cel nii gin gin gin ce wu yaay gin gin gin nii yow. man day Galaay taxawal si wetu kii. sa ndey ah deux deux la. ni kon deux deux la. yow fooy jàng feej. man Africa Ndigal. Africa la jàngee fecc kooku moom mooy Galaay mais Cheikh ñu ñëw ci son bi ñëw ci wàccaay yi ñu ñëw ci préparation bi lan moo ma la njëkk laaj mooy lan moo la xiir ci way kii wax na la ko ba léegi tontoo góoñ ñi lan moo la xiir ci taasu. du dara. xam ar dama ko bëgg. fu nekk na jàng dama duñ maa dugal école may jàng mais man maa bëgg tëgg daal maa bëgg tëgg bëgg affaire yooyu noon te du ma doomu géwal. waaw waaw. Mhm. may nag sant képp ñi nga xamante ne Modou Mbaye jàpp nañ ci yëf yi. Mhm. nag ñi ci jàpp dañoo bari. Mhm. barki Serigne Touba Mbacke kilifa gu ma ko nag. kañ nga koy kilib. ah Modou Mbaye ñoo war a jàppale Modou Mbaye waa Guédiawaye képp ku ma woowee ci son bi ak koo xamante ni yaa ngi may dégg bëgg maa jàppale ah. maa bëgg nga daan may jàppale daan may dimbali ma clip son bi ndax nag ñu bëri ma koy laaj naa ma lu tax clip boo ko foo jëlee la duggee si joo maa ko takkale rek programme bu ma bu ma jël trente mille denc. mais li man dafa am lu ma xaw a jaaxal ci artistes yi ah. Mhm. c' pas pour vous vexer parce que ku dem bay def dara rek c' est parce que bëgg nga. Mhm. mais est ce que du da ngeen war a bàyyi peut être ba am fond ngeen mën a defal seen bopp bañ xaar kenn ci lenn parce que bu fekkee da nga sa produit kat. Mhm. di xaar nit ki dimbali la ci pour fond soo ko soo ko génnee dara kenn du génne. te mooy loolu. ndax Wally Seck premier single bi mu naan xaw ma boo juddoo fekk bàyyi. Hmm. nee na yaayam moo ko njëkk a ne ko demal daa rek ba ba ba si. xëy na suñu borom dina def lépp baax. yàlla baax na am nga beneen métier bu dul bi. waaw électricien la ak mais doo ci dajale ñëgum po sa waa tam bàyyi faa. waaw nee na gars dañ a jàppale nag. dinañ ci jàpp non comme uh-huh. bi moom maa ko annoncé. Uh-huh. maa koy laa ilaaha illallaah bu ñu fii léegi eh. man naa zéro clip bi eh. man sasoon naa eh. waa Géejawaay dégg ngeen de Géejawaay nañ ko bàyyi waa Géejawaay Modou Mbaye ne dina ko clip fii toj kon nag yéen far si xaar leen loolu dinaa ko clip ba mu ne léegi xam naa dama lay mujjee bàyyi ak moom ngeen waxtaan parce que Cheikh mi ngi ñëw te moom it am na lu am solo lu mu indaale. waaw léegi yow géré ko moog galaay. la taa seex di yegsi attaalo nuyu naa leen tàggu naa leen ba suba. daaw jëli wuy ma. suba ci li nga xam ne peut-être mooy euh, taas bi nga xam ne nit ñi léegi dañ koo xaw a yàq. yéen est-ce que jël ngeen temps di ci jàng parce que sànq laaj naa ko sama invité Youssou. Mm-hmm. parce que dañuy jékki-jékki rek Sénégal ku jóg rek day taas ku jóg day way ku jóg day tëgg saba alors que des fois mbir ci looy def lu nekk rek war nga mën a taataan jàng ko ngir boo ko génnee nit ñi xam ne yow mi fi nga jaar il yëfu professionnel la. waa dëgg la loolu moom dafa am solo nit da nga war di inspiré wu bu ba buñ la takkalee kax boo nekk studio xam li ngay wax ak fan koy teg waaye da ngay gis nit rek jékki-jékki rek yor benn xaalisam rek dem studio na may génnee son loolu loolu loolu du yoon. mais yow yaa ngi jàng est maa ngi jàng ànd ceeg sama mag na xaarim temps mu may dooleel. damay toog ma ak moom mu woo ma foo xam ne kenn new fa ñu ñuy répété lu doy waar man ak moom. jàng nu muy demee parce que yéen da ngeen di rek. dañuy teg sabar xam ne jàngum ngéwal doon xaw ma géer. non jàngum ngéwal ah, dañuy teg ñaari dañuy ak nii. alors que ñaari sabar bu ñu tegee ñaari sabar xam nga xam nga keroog doguma la ñi ngi doon wax lu am solo ci li nga xam ne mooy Wally Seck fi ñu toll nii euh, à l'international am na une grande maison de production bi nga xam ne mi ngi liggéey ak moom ci loolu dafa baax ngir boo jàngee musique xam nga toll benn niveau bi mm-hmm. nga war a mën a internationaliser li ngay def te Sénégal war nañ mën a dépasser loolu comprendre nga mais yéen ay ndaanaan ngeen ay ndaw ngeen te da ngeen am talent macha allah mm-hmm. li nga fi way nii dafa ëpp xam nga baax na voilà mooy loolu mm-hmm. Cheikh a daf ma ciy gunge ndànk rek waaw Cheikh Cheikh a ngi ni Cheikh lépp jàmm waaw seet gàllaaya nga bukkee nga <laughs> comprendre nga waaw ci loolu ci loolu mais baal ma taxaw nii parce que ñii waaw ah, mën naa mhm. ne mais lu ma def rek yaa jël yóbbu moom mooy nekk ci clip bi di seulement suuf si galaay ngi nii galaay bukki galaay ngi nii galaay bukkee ngi nii ah, naa la Cheikh di la ziar di bëggee waa bëggee waa di bëggee naa leen yaa ma gën a xam cay loolu <laughs> defoon naa lu am solo waaye defe naa ñi dañu dañ koy bokk ak ñoom ndax dañ leen fekk ci plateau bi ñu def lu am solo Cheikh kontaan naa ci ndaw nii lay def bul ko ragal mais soo yaa ngi nii maa ngi nii ala ca ca mbere mborom ma tocc dalal la nii rek foofa toj lépp ndéng dina la neex cay loolu waa kon ndéng naa ko laaj waa rigi waaw kon laajal maa la may loolu eh, Rokhaya cay deer kon ndéng eh, gendarmerie la mbokki Sénégal maa ko digoon te ñëwaat naa ak yeneen i feem 2STV la ci seen émission 12 13 waxoon naa leen ko bu ma ñëwee du yomb ndax séeréer bee ko wax saa moo yande a ngata ngee saa maa ko waxoon damay ñëw toog waxtaan ak sénégalais yi ndax danoo seetlu jamono ji kidnappé bi xale yu ñuy kidnappé doy na waar te bëgguma lool di am sunu réew lan moo tax ñuy kidnappé xale yi dinaa ko waxtaan ak jaam ñi ñu xam ay ca seexu ñëwal man nga topp ma ñëwal ñëwal man li ma jàpp mooy waajur yi léegi jamono métti métti goo xamante ni boo xëyee sa doo tala toppatoo sa doom boo xëyee yaa ngay daw di wuti loo def sa kër ba yaakaar naa ne loolu daal gën naa yokk kidnappé xale yi ba pare maanaam nguur gi war nañu mën a dimbali ci sécurité kër dëkk bu nekk mu sànni fa ay lom de am de yoo xamante ne dañuy dimbali nit ñi maanaam di surveiller xale yi ndaxte man fan yële rek fële ma dëkk buun amoon na xale boo xamante ne noonu lañ ko fa defoon woon na yàlla yóbbu ko fa ba ni feeñu yor naa doom mais sama doom chaque instant bu nekkee si mbedd bi sax sama fit dal wax dëgg neex yàlla damay nekk chaque instant di wax yaayam damal xool booy bi xool booy bi affaire yooyu affaire yi moom métti na trop ñu ngi koy métti lu bu baax a baax a baax a baax lan moo ma xaw a jaaxal si science boobu ngay wax parce que xale yi ba léegi amaguñu preuve pour xam xale yi fan lañ leen di dugal ak lan moo sumb loolu ak lan moo waral loolu loolu nag gouvernement bi waroon nañ see jàppale pour ñu mën a xam xale yi ni kidnappé pour lan la ak lan ak ñi leen kidnappé lan moo leen tax a jug quoi. na def. maa ngi fi. noo tudd. yow léegi ndongo daara yaa ngi jàng alxuraan. waaw bari saar nga yem. kii nii Ulaazu Rabbi Naas. Ulaazu Rabbi Naas. Maliki Naas. Ah, léegi dama lay laaj. buñ la woowee yónni la ndax di nga dem. déedéet. lu tax doo dem. ndax dañ may rey. dañ lay rey te loolu ngay bañ. lan ngay wax sa mbokku taalibe sa moroom yi nga xam ne ñu ngi yalwaan ñu nan la ñuy def pour moytu pour ñu bañ leen a sàcc yóbbu leen ñu rey leen. dama leen ni wax ku leen ku leen woo bañ leen ndax élection yi commencé nañ dañuy commencé rey xale. di kidnappé xale yi ñu arrêté di kidnappé xale yi sàccoon nañ fi sama benn cousine yóbbu ko ba Thiès temps yi lañ ko gis dañ ko viole viole viole ba mënul dox. kim na pexale temps yi bari na lool ba jaaxal ñu waaye nag mbir mi ah mbirum yàlla la de xanaa jël lépp rek teg ko ci loxo yàlla at yonent bu tedd bi ndax xale yi ñu ngi leen di sàmm fu sàmm di egg waaye yàlla suñu borom bi nag a ah, léeg mu dogal de. gis ngeen lu ma leen waxoon ñëw naa ak doole sénégalais yi waxtaan nañoo ak man dégg ngeen li ñu wax nanu sàmm loolu xale moo yor réew ëllëg te defe naa ne sunu réew bi xale yoo ko war a mën a yori ëllëg. lan moo tax ñuy sàcc xale yi dégg li xale sénégalais yi wax nanu bàyyi loolu Sénégal la ñoo ko moom nanu bokk ndey bàyyi xale moominu yàlla la waaye waaye nanu bàyyi xale yi seexu kontaan naa ci yow. <laughs> am na solo Cheikh am na solo bu baax boo seetloo xale yi sax léegi dañoo terrorisé wu. barki yàlla ndax sàccum xale bi xam nañ ni bu ñu leen sàccee dañ leen di rey. jigéen ni bu ñu leen sàccee dañ leen di violé te loolu dafa ñaaw ci oh, réew. man loolu laa lu ko waral quoi sàcc xale dem di ko defi daka sudul doonu baaxul. yow da xool ci su digganteeg sa borom xale dafa jara xale dafa jara bëgg mm-hmm. xale dafa jara bëgg boo bëggee xale yàlla da lay bëgg waaye di jël xale di ko dem di ko sacrifié wu mm-hmm. wala ngay xool di am alal wala ñunaan la demal xool xale bu amul ndaw waaye jëlal sa bopp nga def ko ci sunu borom xam ni yàlla mooy dogal yàlla mooy maye am am nit du ko may nit déedéet yàlla du ñëw ndax xajul ci diggante yi day boole bu jëlee da koy jox sa moromu nit kooko koy indi boo toogee gëm li nga gëm fas jom nangoo liggéey xam li yàlla booy dogal da ngay am teraanga ju ne moo gën gay dem di rey ay xal bàyyi leen xale yi mm-hmm. xale yi ñu suñuy doom lan suñuy rakk lan suñuy jarbaat lan bàyyi solo am na solo yi nga xam ne Sénégal euh, image bu rafet la am te lii moom wax dëgg yàlla day delloo réew ginnaaw parce que dañuy joxoñ rek te naa ñàkk sunu Sénégal la lu baax lañ ko xamee da dëkku teraanga la donc nañ bàyyi ñaawte fii ñuy def ñu bàyyi la nga wax ak waa Géejawaay sa relation ak ñoom nga tàggatoo waay parce que temps ñu xaw a xat ah, waaw dëgg la man sàccu xale yi sax faaw ma wax ci tuuti ndax fan yi passé dañ maa sàccoon ma galaay war a fee feeñee Magalhañ. ñu ngi feeñ eh. barki démb lan feeñ dem démb Esat toj. foofu tey feeñal a ah, ay sabar daal lan dégg muy xiiree géej waaye rek. <laughs> neex ngeen a neex ngeen a gindi yéen dëgg neexul. Galaye dañ la sàccoon yow yow de ku la sàcc ba waat waaw yow Galaye ku la sàcc yow bu lay doy. jegeel ndànk micro bi. non man lu may sàcc sax. yow looy def ban lañ sàcc man lu ma def man nii rek. Eh, Galaye yow xam nga yow sàcc la dagat ah non non daan duloon ñoom sax gàllankoor bi xool ko. Ah, dagal ko ah non <laughs> dama lay tooñ. dama lay tooñ xaw ma loo may doyee. <laughs> Ah, xanaa la xanaa nga teg ma sa buntu kër rek ray la <laughs> wala nga teg ma ci biir kër gi ma nekk ma nekk kii. am na solo am na solo am na solo waaw waa Géejaay maa ngi leen wax. Euh, ñu xaar clip bi comme Mourou Mbaye nee na dina ko clip loolu lañ doon jooy am nañ ko. Mhm. ñu ngi santaat yàlla bu baax nag. di sant nag sama yaay. sama yaay dafa sonn. sama yaay dama ko bëgg a dimbali. yàlla nga yàlla may la sama yaay dama ko bëgg a xam naa sama yaay dafa sonn. moom rek laa bëgg a dimbali. waa Guédiawaye aw ma seen fay. fu may toog naar. sama gars yi bëgg naa ne bu baax. moom moo sama doomu nday moom laa àndal mu ngi ne toog. di sant képp ñi nga xam tamit ñu ngi jàpp ci man di jàpp ci combat bi ndax barki démb dama sangu ba waaye tegi ak Serigne Saloum a liggéey rek ndaw moom boo amee jom de génn ci ndaanaan nga gën borom borom gu ñuul yàqu ñàkkul dara daal di wax nag kontaan naa si ñëpp Ousseynou Ndiago bala ma ngi sa doom ci suba la anniversaire ma koy xam bés de tuuti nga tàggatoo temps waaw xam nga Tivaouane démb la woon mhm. ma ko faat parce que foofu sama dëkkuwaay maa ngi jël nuyoo bi di ko teg sama xalifa ba sëñ Mansour ah kooku te itam ku ne xam na ni nam mel di ñaan yàlla def jàmm mm-hmm. soo kontaan naa ci di bëgg nag sama xarit Aïda Bari bu Tëngéej day day anniversaire kontaan naa ci yow kontaan parole bi parce que temps bi moo xaw a di remercier ki nga xam ne mooy Minka Beauty ah jaar ci perruque bi ak ongle yu baax yi bëgg naa leen di leen jox daje ba demee incha allah jaajëf